alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. سحابي إلى البيض الحسان وقد شمط للرأس حب jaamiun lays jaamiun laysa ak tobit tatawaftu abri lwasla walxaalu innani ala shibi yaasin min maraami fahimtu garaaman إذ فهمت وتملي وصال المخفى وهو حبيبي ربط دنا فتدلى لي وكدت لحبه أذوب حياء والمقام قد ارتبت قلت وأيقنت السعادة منشدا سميني رسول الله والقلب منتشد أهابك إجلالا وعندك قدرة ويا قاسما منت المناصب والخطط ويا حافظا ما في الخزائن كلها ويا منشأ الفيض الذي عم وانبسط عليه صلاة الله ثم سلامه أتاك طريد وهو في سلكك انخرط أمله من أملته فهو آمن وتأمين عبد من سوى أحد غلط والإملاء waqad awlaaka lawlaaka xaamidan قبيل وجود الكون والكون أنت قط يا أولا للأولين محمد وأحمد محمود بك الحمد ينبسط لي والحمد بكفيك والكل لائذ بحقويك يوم العرض والكل ما بحقك بشفع فيه إني كما ترى طريد الجنايات وللحال مختلط وبدل وقلب حالتي لست راضيا لنفسي ذاك الحال والقلب منتشر تفلت لعين استحال أجاجه فراتا زلالا دارك العبد إذ سقط تفلت لعبد عين فاستحال أجاجه فراتا ذلالا دارك العبد إذ سقط وإني أراني ليس حظ لغيره بقلبي وأعمالي عشواء تحت بيت حججت وما أخلصت أبغي ربوعهم وذرت اشتياقا لامتثالا وذا فرط كذاك صلاتي مما صومي فرحدتي وذكري إنفاقي كأعمال منقصتي هو انقاد لا أدري هدى أم ضلالة كفاه كفاف لا رجاء ولا قوات ففعلي لا لي بل علي فلا أرى لنفسي وأحبابي سوى فضل من بصري وإن يشفع المحمود إن يشفع المحمود فينا فإنه شفيع لنا لو كان في أمرنا شطط فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمؤمن عبيدا في يديته سقط وحبه صحيح ثابت متمكن وهذا قصوري كذب الحس فاختلت بيمن المقفى ارتجي العفو والتقى عافية بعد الصيانة عن غلط وهب لي نورا بفؤادي ولحظة تحتي وفوقي والأمام كذا الوسط وهب لي نورا بيدي وناظري سمعي ورجلي واهدني مفرقي شمط عليه صلاة الله والسلام آله وصحبه ناصر الدين البصر taxaa sànni na bii ak man ilal bii di jëm ci way taaru ñi way weex yu rafet alxisaan yi da way taaru waqat shamat te mbir moom béj jaaw na jaaxaax mooy béj jaaw boo xam ne mu ngi jaxasoog ñuulaay karo li rasu li ñeel ma rasu bopp bi xubbun cofeel jaamixun day aji màmm laysa yartabit jël muy waaye fekk taar yi pay bi nga xam ne mooy feeñ ci feeñuwaay yu ute moom lay junj la waykat boo xoon usamika fi xarit ya taaratan وآونة لبنى وآونة سعداء حذار من الواشين أن يتفطنوا وإلا فمن ليلى فدتك ومن صاد kii daf ne fi yàlla di léeg-léeg may kàll di nëbbu sa tur di la tuddee Layla léeg-léeg ma tuddee la Soxda Lubna ngir rek fiir ci rambaaj yi ñi xam suma soppe yu mooy kan waaye kan mooy Layla kanay Sooda bu ñu xeeyoo ci sa ci sa wàll yow mbëggeel yow <coughs> loolu la loolu lay junj maxaa an fuaadi xubba Layla wa tendami widaadul imaamil haashimiyin taarab yonent bi sallallahu alayhi wa sallama moom lay gis ci li muy gis yenentu lay fuglu ci lépp moom lay junju mbëggeel googu nag nga xam ne mënu koo màndal xolam dara mënu cee nàndal xolam moom lay wax ne tatawaftu wër naa abri may sàkku wasla jokk wal xaalu te mbir moom xaal bi inna nii naka man ala shibhi yasin maa ngi ci niru naagu maa ngi niru ko naagu ci jot li ma bëgg ci ki ma bëgg min maraamin ci càkkuteef wa muntaqat ak jot luñ for parce ñaari <clears throat> ñaari yi ci rawiya yu jafe la daat ak ak zaal ci yu jafe la ci arab ci la ba fahimtu min haama yahimu himtu mbëggalam xaraaman ngir nga cofeel is fahimtu ba ma dégg dégg googu nga xam ne dafay yokk ngër ma maande li bàyyi wax ne aarifin nii ci waadil xayrati lañ am dalaalum bi zaati llaahi aynu hidayatin iyaaka wa naqdal mu addi ilal ci yàlla bokk tëg réere yàlla réer eh, ci yàlla luñ fàggu la réere yàlla nag luñ gaañ fahimtu xaraaman is fahimtu kon fahimtu xaraaman waaw gi bokk ci xarab bi fa istinaaf la himtu wa tëmma tamat lii ñeexal ma wisaalul muqafaa jokkoog mu xafaa ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallama kiñ topp <clears throat> kiñ topp jeexitam waxwa te mbir moom moom rabata jokkale na xabli buum sama bii ci moom mbëggalam ci mbëggeel gannaaw boo xamee na dégg naa lay jugee ci pay bi ak luy pay bi ma am jokkoog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jokkoogu mat goo xam ne mooy mu jokkale buum ak ak suma buum borom jokkoo googu <clears throat> mooy jàmbat fasanti ko waxtu wu nekk ajibtu li sabbin mughramil qalbi mulaayi xaribin min al mahbubi bil hubbi mujaayi wa dalika ibrahimu yahwa muhammadan wa amru wujudi غير مقام لا زال يشكو البين والحال إنني حبيبي معي في أو وسط بلقاي حبيبي معي في البيت أو وسط بلقاي danaa jege na fa tëddallaa te jañu gën a jege lii ñeexal ma wa kittu may waaj maanaam ma jege li xur li xubbi ngir mbëggeelam azubu may say xayaa an ngir ga kersa wal maqaamu te mbir moom maqaama bi xadux tubit maqaama bu ñee la de yonentu daf maa jege jegeel ma boppam gën maa jegeel ma mujj nag di waaje seey ngir kersa lu tax may waaje seey ngir kersa mooy daf maa may may ma may ma àggale ma ci maqaama boo xam ne maqaama bu ñuy ñee la te ki koy ñee du n'importe qui ki koy ñee maqaama boo xam ne góor yàlla yee koy ji maqaama boo xam ne góor yàlla ñee koy ñee qad qaala man fa inni mufawidun umuuri barahama fa huwa ku la may loolu kay yow am nga maqaama bu ñuy ñee waaye ku am maqaama boobu itam am nga may goo xam ne da nga rus ki la may ndax yonent bi sallallahu alayhi wa ko yàlla mayee dimbale ko ci noonam yi ubbil ko makka gis ni ko yàlla dimbalee ki neewoon doole noonu ba tey mooy ki neew doole waaye kii ki am doole kenn la moo yàlla yàlla mi ko defal loolu moom la rus ba bàyyi mu ne si kiñam baa ngi laal tegam gëlëmam gi fa qultu ma wax ay xantu tama xoolu saadata texe munshidan may aji joor yi wéy samiir yi maa ngi saddi ay wéy di wax ne samiir yi ngomlaankat sama ki may ngomlaan ak rasulullahi yonent bi yàlla la muhammad sallallahu alayhi wa sallam wal qalbu tamir moom xol bi muntashid aji kontaan la may wax ne ki may ngoom laa nag mu yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sama xol a kontaan maa ngi naan ko ahaabuka ijlaalan wa indaka qudratun waxuma li waa ji waxoon ahaabuka ijlaalan wa maa bika qudratun loolu la loolu la shaayir ba waxoon ahaabuka ijlaalan wa maa bika wa maa bika qudratun na moom nag ahaabuka ijlaalan wa indaka qudratun maa la wekk ngir màggal la te du ne dama màggal ku màggut waaye ndekete fekk nekk na ci yow xudratu na kàttan jalaaliyatu mu ngi ci yow buñ war a wekk kom ni jamaaliyatu nekkee ci yow buñ war a bëgg yaa qaasiman yow aji séddale ji min ka tukkee na ci yow almanaasibu wàcc waayi palte yépp wal xutat ak plan yëpp yi nga xam ne moom la ñuy falee lépp ci sa loxo la nekk wa yaa xaafidan yow aji wattu ji maa fi la nekk ci ndaxañteefi magasin yàlla yi ndax kii séddale li yàllay joxe kay moo garde magasin yi kulliha léppam wa yaa man al faydi yow ki nga xam ne yaay sosuwaay faydu may gu mu mën a faydu bi ak may gu mu mën a doo alladi bi nga xam ne amma matalana wan basata tàll alayhi salaatullahi summa salaamuhu ataaka dikkal ne la taridun kuñ dàq wa huwa fii silki kan xarat waaye wa huwa mbir moom in xarat aji rangu la fii silkika ci sa kaaraange mu ngi ràngu ci sa mbooloo loolu rek la yaakaar waaye mu ngi wax ne moom kuñ dàq la ngir bàkkaar jaam yi gën a xam yàlla ñoo gën a gis seen ñàkk jëf dara fa amminhu hóoluloo ko man ammantahu koo hóoluloo fa huwa moom aminun aji hóoluloo wa taaminu abdin hóoluloo ak jaam min siwa ahmadin ci kudut ahmad xalat njumte may ko kóllëre xam nga ñi gëm ne yonent bi daa wax sallallahu alayhi wa sallam man daxala daara أبا سفيان أبي سفيان فهو آمن آمن ñi gëm ne kooku nekkatu fi ñoom duñu wax loolu hmm. ñi gëm ne yonent bi óolu loon Ukaasha ba mu ko laajee ne ko garanteel ma bokk ci ñuñ àjjana mu ne ko ci nga bokk ñi gëm ne yonent boobu ba léegi soppandiku boobu yàllaa nga ko teg ci loxoom moo tax bàyyi di ko wax ne fa amminhu man ammantahu fa huwa aamin te amin zaahir bi ak baatin bi yëpp nga fa ku waxoon ne man daxale daara abi sufyaan fa huwa aaminu ku waxoon okaase ne ko yow ci ñooñ at jànn nga bokk mooy ki bàyyi di wax ak fa tey ku àggut ci mën a wax ak moom it jàppal ne yaa mënta wax ak moom laa luy tere waqad awlaaka te jox na la sa borom lawlaaka maqaama lawlaaka bu taxutoon ak yow duma xamal mindeef xaamidan ngay aj ci aji sant borom sa xubay la wujudil kaw ni njëkk nekk ak nekk gi njëkk nekk ak nekk gi wal kaw nu te mbir moom nekk di untaqat maanaam bind na gannaaw bu kër luy tere nga man loolu yow mi ko mënoon njëkk nekk ni nekk bu demee ba nekk gi nag ñu tomb ko mu nekk ay tomb yu nekk kay rawatina yaa awalan yow aji njëkk ji lil awalina ñeexal ngay njëkk ñi yow nga xam ne yaa jiitu way jiitu ñëpp muhammadan yow muhammad wa ahmadu yow ahmad ndax dëgg-dëgg bu jiitu googu amutoon du mën a wax ne kuntu nabiyan aaliman bi nubuwati wa aadamu mujandalun bayna al maa'i wa tin nekkoon naa ab yonent bu xam suma yonentu fekk aadama mu ci diggante ndox ak bi ka tukkee ci yow alhamdu cant yan basit lay tàllaloo ci yow la cant tàllaloo muhammadu fi alhamdulilah baay wax laa fi'la gayrihi ladaa aarifi l-i'raabi fa huwa fasiih li wal hamdi drapeau cant fii ka fay ka ci sa ñaari dénk la nekk yawmal qiyaamati wal kullu te képp laa'izun aji wéeru la bi bi xaq way ci sa ndigg xaqu mooy fu ngi nit yi tagg gañoon mooy ndigg maanaam ñëpp a ngi jafandu ci yow bés bi nga xam ne yonentu yëpp koo dem rek nafsi nafsi lañu wax ba ci Ibrahim ñoom ñëpp ku nekk nafsi lañu wax ñu ñëw ci yontu bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ana boobu la bàyyi di wax ne wal kullu laa'izun bi haqqi mata qumta wasta al anbiyaai mushaffaan hunaalika ashdu bisanaawoolo bi xaqwayka yowma al ardi bés bi nga xam ne yàllaa ngi gaaral jaam yi te ñi ñuy gaaralal kat mooy ñi nga xam ne dañ leen a yërëm wal kullu te képp mbaa xalaat juumut ci ba mu dawee ñëw si ci yow ndax ñi nga xam ne yow yaay yërmaane yàlla te yow yaay yaa wax ne ana sayyidul qawmi yawmal qiyaamati bu nit ñëpp dawee ñëw ci yow pour muccee ci yow kon kenn juumut ci ñoom bi xaqika ci sa xaq fashfa yàlla nga ramu fiyee ci man la bàyyi fa inni naka man kama tara ni nga gis taridu jinaayatin kuñ dàq la ji ay tooñaange maanaam koo xam ne tooñaange mooy sabab ñi dàq wali te na ma alxaalu xaal bi muxtalit bi aji jaxasoo maa ngi ci xaal bu jaxasoo fa bëddil soppil wa qallib soppil xaalati sama xaal indi yeneen xaal yu dul yi lestu deet man raadiyan may aji gërëm li naf si ñeel bopp sama zaakal xaala boobale xaal wal qalbu toqol bi man tachat kontaan bakkan kenn gu kenn gërëmu ko lu may ku ko xamut moo tax muy wax bakkan bi moom lay wax ay ana bakkan ak moom ndaataay laay waxoon ne li an tasbaxa jaahilan laa yarda an nafsihi xayrun min an tasxaba jaahilan laa yarda an nafsihi xayrun min an tasxaba aaliman yarda an nafsihi fa ayu ilmin li aalimin yarda an nafsihi wa ayu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi ànd ak ku réer ku gërëmut bakkanam bi moo gën nga ànd ak ku xam ku gërëm bakkan bi mu ne ana lan mooy xam-xami ku gërëm sa bakkan ana ana lan mooy réer ak ku xam sa bakkan ku gërëmut sa bakkan kon daal xam-xam mu ngi commencé ci ñàkk gërëm bakkan tafaltali aynin yow mi nga xam ne tëfal te tëf li nga gis nga tëf li arab la li bi di wax mm-hmm. moom baat bi arab yi ñoo bokk mooy arab tëf li arab tëfal li nga li ci bëti qataadata nga bañ luqee bëtam bi te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ndax bëti àddina moo la gënal wala bët ci àllaaxira mu ne ko ah bëtëb àjjana de baax na waaye daal man de maa am seet bu bees te bu ma sañoon daal ma fa dem ak lii yonent bi tëf li ci bëtam bi rek bët bi dellu gën a baax sax na meloon bu daan wànnentu sax bët boobu moom du bokk ci wànnentu fastaxaala mujj ujaajuhu ndoxam bi nga xam ne ndox mu naqadi la woon furaatan di ndox mu neex zulaalan bay aji neex daarik dabaatalal al abda jaam bi issaqat ba mu rotee ci bàkkaar way nii naka man araani dana gis ma day sa xazun déet li xayrihi ñaal keneen ku may moom yonent bi sallallahu ci xol sama gis naa ne keneen ku dul yonent bi amul cër ci sama xol wa amaal yi samay jëf nag ka ashwaa mu ngi mel ni jëfi bémpen tax tabit di jaxasoo bémpen mooy ngoo xam ne bu guddee du gis buy taxan du xàmmee yu baax ak yu bon dafay boole rek loolu la mel la ay jëfam xajajtu xaj naa wa ma axlastu te sellalu ma tabri may sàkku rubuahu ay pàkkam maa ngi xaj mu ngi xatmu boppam ndax ñàkk gis wàllam ci jëf ji te dëgg-dëgg kenn du sellal fekk àggoo foofu ndax bàyyi nee na al siwa fi muamalatika ma allah wa nafsika siwa ixlaas dëgg-dëgg mooy nga génnee sa bopp ci sa jëflante yàlla te xamal na yow ci sa bopp ci nga génnee ku dul yàlla ci sa jëflante yàlla te yow sa bakkan bi keneen la te feneen nee na ku xam keneen mënta génne keneen kon nooy dem ba sellal mooy nga fexe ba doo xam keneen maa ngi xaj di sàkku rek ay ay ay ay pàkkam ay déngëreem ziyaara ishtiyaaqan ngir cofeel lim ti saalan duut sax ngir topp waza loolu farat jàkk sàggante la ci làmmiñi mbëggeel lay waxee fii kadaanaka noonu salaat sama julli suma saw mii sama koor ka raqdat yi samay nelaw wa zikri sama tudd yàlla wa infaaq sama dundale ka amaali man mel ni jëfi koo xam ne nii dafa jëng hawan cofeel qaada moo hommat laa adri qawma hudan njub am dalaalatin wala réer kafaahu doy na ko kafaafun doylu laa rajaahun du caageen yaakaar wala xanat du caageen naag xam nga jaam danañ ko digal mu topp ngir ne dañ koo digal mu war a topp mën naa am li muy topp nee waaye digal la nga topp fekk da ngaa bëgg topp ki lay digal loolu mooy wax maa ngi julli maa ngi oo maa ngi tëdd su tëdd bu sa julli demee ba tolloog sa taxawaayu tëdd kon yow amatoo aada sa aada mujj na nekk ibaada jullit mën naa àgg foofu jullit bu demee ba nga xam ne jëfi aada yi yàllaa tax mu koy def dafay mujj taxaw taxawaay ibaada dafay taxaw taxawaay jaamu yàlla boo tëddee ngir jóg boo jugee delluwaat ci liggéeyam yàlla sa tëdd boobu ci liggéey ci jaamu yàlla boo lekkee sant yàlla dellu pour dëgërlu pour jaamu yàlla sa lekk gi ba tey ci jaamu yàlla moo tax bàyyi wax feneen ne wa salli wa sum washrab wa kul wankixan wa sil fa ma dama gayru lmustafa wa kula walkullu minhum kullu xaqan wa lam akun ujasimu maanan id qasadtu sanahu وما يقال لا لا سبيل لوصل من تحب لا لا قل لا لا أراك سواه kon léppam dafa mujj nekkal yàlla wiraasata muhammadiya mu yàlla di wax qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin la sharika lahu bi dalika umirtu ana awwalu wa sallam yàlla di wax ku muy tuddee julleem ci lay tuddee dundam ak deexam fa muy tuddee ñàkk bokkaale yàlla fa lay tuddee dundam ak deexam nga xam ne kon desee dara lépp la jox te faaliya sama jëf <clears throat> laa lii déet muy ñeyal ma bal alayya kay dafay nekk war ma kon duma ci sukkandiku <clears throat> bu ma demoon ba gis jëf bu ma demoon ba gis ne maa jëf rek loolu dafay mujj nekk wàññi moo tax mu ngay jëf waaye mu ngi fakk jëf yi di wax ne jëf ji bu dara desul lu may jëf ji ñeexal ma du ma ñeexal daf may war ndax man maa gis ne dafa jëf moo tax fa laa araad du gis li naf si ñeexal bopp sama baa bi ak samay soppe si waa li man lu may gënee la ki nga xam ne ba sa tàllal na maanaam joxe na ay may wa in yashfa ndam na fii naa ci ñun al mahmudu mahmud ke yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam fa innahu yonentu koy ci ñun fa innahu naka moom shafiun aji ramm la naa ñeel ñu law kaana bu nekkee fi amri naa ci mbir suñu chatat jéggi dayo yonentu koy sallallahu alayhi wa bu ñuy ramm dafa fekk ñi am ay rëcc-rëcc loolooy tax ñu mu mu mu ñuy soxla ramm mm-hmm. fukk nekk ma chefiyaan di aji ramm yawma laa zu shafaatin bés ba nga xam ne laa zu shafaatin déet borom ak rammu bi muxnin <coughs> di aji jëriñ obaydan jaam boo xam ne suqita rëccu na suqita fi yadihi fi yadihi ñaari baal la yoo xam ne benn baal rek lañ koy firee mooy rëccu wala maa suqita fi aydihim mm. loolu la loolu nga alquran wax dangay wax ne fulaan suqita fii yadayhi doo wax ne saqata fii yadayhi lu tax loolu di firi rëccu mooy kuy rëccu daf naa ni màtt baram moo tax arab rot ci sa baaraam bu doon firi danga naan dafay rot ci baaraam mu fekk firiwul loolu rëccu bi ci fexle yi nga xam ne dafay takkoo binaa lil majhul بتبييض عني بكذا فحبي صحيح فحبي mbëggeel sama saxiixun aji wér la saabitun aji sax la mutamakkinun aji jàppandi la hada lii qusuur yi mooy gàttañu sam këzaba fenloona alxissa gi faxtalat te ci lisaanal tawaadoo yi lay wax ak lisaanal mahabati maa ngi nii sama mbëggeel gi wér na lool sax na lool jàppani la lool waaye suma gàttañ laa ngi nii di fen lool yi ñuy yëg bi yum nil muqafa ci barkeeb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki topp jeexitam arte ji yaakaar al afwa njëggal wa tuqaa ak ragal yàlla wa aafiyatan ak aafiya baada siyaanati gannaaw sange sàmm an xalaat walis juuta maa ngi yaakaar njëggal yaakaar ragal yàlla yaakaar aafiya goo xam ne daf koy dafay ànd ak nag gannaaw boo xamee ne yàlla wëttu na nga ci njuumte yépp wahab lii yàlla may ma may ma nuuran leer fi fu aad yi ci sama xol ci ñaan yoon tu sallallahu alayhi wa sallam allahumma jal fi qalbi nuuran fi basari nuuran fi sam'i nuuran wa an yamini nuuran wa an shimali nuuran wajal lii nuuran wa fi riwaaya wa azim lii nuuran nga xam ne daana ko jàng ci feneen wahab yàlla nga may lii ñeel ma nuuran leer fi fuaadi ci sama xol wa laq-laq yi ak sama làmmiñ wa taxt yi ak sama suuf wa fooq yi ak sama kaw wa amaami sama kanam kazaana ko noonu alwasat sama digg wahab lii yàlla na nga may ma nuuran yàlla na nga may lii ñeel ma nuuran leer fii dayee ci sama kanam samay loxo wa naadiri samay bët wa samay sama dégg warij lii sama tànk wax di nii yàlla na nga jubal ma chamuta ba jaaw na mafraqi sama joggare dem naa nag ba sama kanam boppi boppi jëbi kanami jëbi dem na ba bay jaaw maa ngi ñaan yi yëpp nga may ma ko soo demee ba bay jaaw kii daf na dem na ba bay jaaw naka jekk damuy sàkku ci commencement am la doon sàkku moo tax mu wax leneen fa ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Mustafa maa rumtu min sigari wal yawma xattama shibi baada adaa'i wal yowma qad shaaba rasi qad shaaba fawdi sayid al arabi nee na yonent salaay salaam la ma bëggoon ba ma nekkee xale ba léegi maa ngi taxaw di ko hut ba léegi maa ngi béy jaaw nii kon koo gis kuy kuy ña ko doon hut daal ñoo ko xam loo bëgg teel koo hut nit du xaar ba mag ne dafay door hut du teree xam nag teree xam waaye màgg war yomb màgg di jàng nga war yomb nga jàng nga war a jàng ko léegi alayhi salaatullahi wa salaamuhu wa alin wa sahbin asaru diina fam basat julli ci yontu salaai sallama julli ci ahlu bayt rasulillah salaai sallama ñi nga xam ne ñoo dimbale diina ji ba dimbale ba diina ji tàllalu ba àgg mu àgg yëpp allahumma salli بسم الله الرحمن الرحيم حبيبي عمر بن مالك عليك السلام والرحمة والبركة وما السؤال عن الخاطر والبكرة والعبرة هل هي مترادفات أم لا فالجواب والله تعالى أعلم أنها مترادفات من وجه غير مترادفة الخاطر ما يرد على القلب سواء من أعمال الفكر ما أعمال الفكر أم لا والخاطر الحقيقي alxaatiru muttaxidu billahi idan adama al abdu fan yawjuduhu xata lam yabqa illa xaatirun yujudu li xadrati litlaq xaytu shaa wa kullu unaasin qaarabu qayda faxlihim nahnu fakirna qaydahu wa huwa saari والفكرة إعمال العبد سير قلبه إما في ربه أو في نفسه <clears throat> وكلاهما منتج فائدة كبيرة أنك إن تفكرت بالله بجميل صفاته وأفعاله من تشتاق إليه تتقرب إليه بما يقربك إليه من عمل الجوارح إن تفكرت في النفس وخبثها لا بد تفر منها والفرار منها هو الفرار لله بما يقربك إليه من عمل الجوارح وهذه هي الفكرة والعبرة الانتفاع بالفكرة وهي أن تكون إن وقع بصرك على شيء دق أو جل معتبرا في القدرة التي أوجدته متى قطر ببالك شيء دق أو جل كذلك بهذه تعلم أن الخاطر ما من الله إليك الفكرة ما منك إلى الله والعبرة أثرهما ونتيجتهما وعلى الله قد السبيل والسلام لله سيدنا شيخ إبراهيم حياه الله تجاني عام 50 و 300 يا تبي باينيس تونتو mu ne sama soppe Omar bin Malik waaleykum salaam wa rahmatu wa barakatu ni ku laajte bi nga doon laaj ne ndax xaatir ak fikra ak ibra ndax benn lañ <coughs> wala dañoo utee bàyyi ne ko bennoo nañ ci boor utee ci boor xaatir mooy mu loo xam ne dafa rotee ci péeb yàlla bi ñëw ci sa xol ci lu duhut yow yaa ko doon jéem xalaat xaatir xaqiqi mooy xaatir boo xam ne dafa bennoo ak yàlla waxtu bu jaam bi demee bay jaam bi yëgatul ak nekkam nekk yàlla gi rek tabaraka wa taala lay yëg nekkam gi nga xam ne du dëgg <coughs> mujj na jeex ci nekk gi dëgg <coughs> nga xam ne amatul benn xaatir buy wëndeelu lu may ci péeb itlaaq fu ko neex mel ni la waykat yi bi waxoon waaye ku xam mbir loo gis xam ko ci dana wax nañ ñëpp jege nañ tënk seeni kuy ñun nag suñ kuy bàyyi nañ ko muy dàngang di dem bàyyi ci jublu xaatir bi nga xam ne mu nga benn pay yàlla bi dàngang ca pay ba kooku du xaatir cheytaan xaatir cheytaan am na xaatir maliki am na xaatir nafsaani am na xaatir rabbaani am na xaatir rabbaani nag mooy xaatir xaqiqi mooy bi nga xamee ne bu jaam demee ba nga xam ne nekkatut moom nekk yàlla gi rek lay seedu ci mbir mu nekk boobaa lay rot ci moom ca pay yàlla bi lay jógee dëgg lay nekk duul loo xam ne tim moom mooy nal xelam mi pour indi ko déedéet loolu mooy xaatir fikra nag mooy jaam bi mooy xalaat mooy jëfandikoo xelam jëfandikoo doxa ak xolam benn ci boppam mbaa ci boromam ñaar yépp nag dana jëriñ jaam bi jaam bi buy jëfandikoo seeru xolam ci boromam mbaa ci boppam bàyyi na ñaar yépp dafay jëriñ jëriñ lu mat ndax bu jaam bi xalaatee xalamee ci yàlla ak meloom yu rafet aki i jëfam yu mat faw mu nam mu jëm ci loolu loolu boppi alquran fa la ko jàngal alif laam miim dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiina alladina yuminuuna bilxaybi alladina yuminuuna bilxaybi moo moo indi wa yuqimuuna salaat wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun ba nga xamee ne <clears throat> seen xaatir mu ngi aju ci xayb ñi am cofeel jëm ci borom xayb loolu moo leen toggeloo liñ toggoo ci jaamu yàlla yi wa yuqimuuna salaat wa mimma razaqnaahum yunfiquun gannaaw yuminuuna bil xayb bi ci la ñëw mooy jaam bu demee ba xaatiram aju ci yàlla tabaraka wa taala ak taaram yu rafet yi ak meloom yu rafet yi turam yu rafet yi jëfam yu rafet yi dafay nam mu jëm foofu ku nam mu jëm na namal kaw lax léegi oto moo la fay yóbbu boo amee paas da ngay jël oto boo amul paas sim da nga dox yàlla ku xaatir jëm ci moom gisoo lu may ay mat gisoo lu may ay taar faw nga namm jëm ci loolu boo namee jëm ci loolu moo lay def nga toggoo jaamu yàlla yi nga xam ne moo lay jegaloo yàlla tabaraka wa taala li nga xam ne sa jëf cëri jëfi sa cëri zahir yi mën na ko cër yi toggoo loolu mel ni namu Kaolack daal jël oto pour dem Kaolack bu fekkee da ngaa xaate da xalaat ci bakkan bi bakkan dafa <clears throat> wàññeeku bakkan fa bon wa maa ubari'u nafsi inna nafsa la ammaaratum bisu <clears throat> illa ma rahima rabbi ma ne bakkan boo ko xamee xool ci moom boo xoolee doo gis lu may luñ sib boo xoolee doo gis lu may lu wàññeeku boo xoolee doo gis lu may lu matali boo xoolee loo gis lu may lu ñaaw boo xoolee nag gis lu ñaaw loolu gis luñ sib loolu gis lu wàññeeku loolu nga sib ko daw jëm ci li nga xam ne mooy li mat mooy li taaru mooy li xam mooy li sax mooy li fiy nekk ba faw boobaa yow da ngay nam mu jëm ci mat gee daw manki gee bu jàmbi bi saxee ci loolu rek àgg ci mat jaam bu dawee bakkan bi bu daw bakkan bi rek mooy mu ngi daw jëm ci yàlla te yàlla wax na ne na ngeen daw jëm ci yàlla daw jëm ci yàlla moo xam ko daw jëm ci yàlla foo jëm boo demee ba Màkka tim li nga bàyyi woon kaw la ngay fekk donte da nga fa fekk nga xam ne shaayira la yàlla santaane ñu wër ko na yàlla nekkee yow ci kaw noonu la nekkee yow ca mag kon daw jëm ci yàlla mooy nga daw dem ci topp yàlla tabaraka wa taala ci lépp loo xam ne daf lay jegeloo yàlla ci jëfi cër yi <clears throat> ak jëfi xol yi sax bàyyi ne loolu mooy fikra mooy xalaat ibra nag mooy jëriñoo xalaat mooy xalam gannaaw boo xalaatee nga xalam mooy nga jëriñoo la nga doon xalaat gannaaw boo xalaatee nga jël résultat bi jëriñoo ko pour lu lay jëfandikoo ko ci lu lay jëriñ loolu mooy ibra loolu la uteeg fikra mu ne mooy nga nekk bu sa bët tàbbee ci dara lu tuuti wala lu màgg nga cee xalamee yow kàttan yàlla bi nga xam ne moo ko xamal waxtu sa xaatir sa xol toqee ci dara lu màgg wala lu rëy ba tey nga ci àggee ca li ko amal muy yàlla tabaaraka wa taala ci loolu ngay xamee mu ne na xaatir mooy lu tukkee ci yàlla ñëw ci yow ikram mooy lu tukkee ci yow jëm ci yàlla ibra nag mooy seen jeexit ak seen njëriñ ñoom ñaar wa alallahi xatu sabil wasalaam allahuma salli ala sayyidina muhammadin fatih lima xatim lima sabaqa nasri xaq bilxaq hadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa lmiqdaari azim siratan turina bihi alijabata ayna alhina wasna bi ahlina zuriyatina ashabina qudamina ahbabina ansarna حضر من الجميع غاب وزدنا واتنا وقنا واحفظنا وسدد امورنا وحب دارنا وقلوبنا واجعل خير ايامنا يوم لقائك وصلنا بصدق الجميع وعاملنا بلطفك الجزيل الجميل sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin